et si c'est c'est c'est pas conseillé de. kilifa kilifa bu mag donc man ma ne ko diw. parce que nag man xam naa loolu peut-être bokk na ci samay cat aw ma ci kersa. Ah. ma ne ko diw li nga def nii mais mais ñaaw na. mais lu xew ma ne ko nangam ak nangam mu door a rendre compte tolluwaay la mm. culture la. keroog yaa ngi koy wax. Mm-hmm. sa jarbaat boo xamante ni nangami at la am. Mm-hmm. xalaatu loolu. Mm-hmm. te nañ ko yaree. nañ nit ñi ni ñu mel la société sénégalaise. moo toll foo xamante ni dañu war a ñun ñëpp ñu defaraat ñu. mais pour ñu defaraat ñu faaw ñu lijjanti benn mbir li war a jaar yoon jaar yoon. ki ko war a jaaral yoon jaaral ko yoon. doxee ko ñu gis ci moom modèle bi daal di appliquer que l'État mette les conditions de contraindre les populations à respecter la norme mais sachant que ce mm-hmm. même état mm-hmm. moom ci doxalinam ci ay institution dafay fonk li nga xamante ni moom la euh, maanaam séq ak ñun mm-hmm. ci respect ci defin ci jëfin pour que ci kaw exemple bi di jóge ci kaw di wàcc si ñun données yi changé car rapide yii am nañu njëriñ de waaye waratuñ fi daw dëgg la tata yi dañ ko indiwoon pour loolu mais nañu continuer mutation bi mais jox leen ko ci ni mu gën a oyofee ni mu gën a yombee course yi ñuy daw pour am versement bu doy tax ñuy tànk dajale nit ñi comme la yàlla xam doy na ñu dimbali leen ba ñoom loolu bañ a nekkati seen souci ñuy dawal norme man li ma jaaxal transport en commun Gambie Gambie propre normal amul lii Gambie. waaw kii bi. amul charge bi pour lan overcharge parce que léeg-léeg da ngay gis aussi chauffeur boo xamante ni tata du benn du ñaar ñetti yoon bu nekkee di dawal otoom fees day tëj ay eh, buntam. mais mhm. bu wàccee arrêt Yacine pour que nit ñi wàcc da ngay gis nit ki ci boppam mooy bu roxloo pour pour pour dugg est-ce que lu comme oh. oh, gis nga comme li ngay gis. mu ngi nii parce que à parfois amuñu choix ndax dañuy tardé. ndax dañuy wax ne am nañ ay bus mais ñun boo xoolee Sénégal parfois danga naan est-ce que amul li fi nekk ci bus ak tata est-ce que danga naan ëpp ko te pourtant peut-être mën na ko ëpp mais bëri ñoo xam te ne dañuy tardé seen liggéey dafay jot boo naree xaar 16 euh, bi romb la fees 40 euh, bi romb la fees mais foo jëm doo liggéey dangay tardé te il faut nga dem liggéey loolu moo ko waral. justement Bigui nuyu naa la dalal naa la ma may la rek nga si tuuti xorom. Hmm, fay naa la ndax may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ñiy teewlu émission bi di Subatel en même temps euh, internautes yi et cetera mais man euh, lu ma jaaxal man personnellement j'ai décidé avant may am bac laa ne du ma duggati bus. parce que dama sonnoon <laughs> déjà je suis en surpoids bëgg dugg ci bus bi. Mhm. bëgg may ma ma toog. Mhm. Euh, jàngal suba ba guddi ñu la yow yaa ngi woon école yaa ngi woon classe toog nga donc amoo droit toog injustice bi nekk ci biir bus saagante yi les receveurs nga xam ne formation bi leen jàngal nañ ma baal mais saaga da cee bokk ak dàgg bus buñ la nee benn nga ne fukk te koo xam ne dafa fay xaalisam ñëw ba ci biir bis bi fay dugg nga war ko wàccee de de autre chose euh, chauffeur yi moom ak receveur bi ñoo war a déggoo surcharge bañ a am ci biir bus yi parce que bus yi en général ngay gis ay sàcc yu énorme yoo xamante ni euh, yenn yi da ngay yor yenn somme yi sax c'est interdit ngay dugg ci biir man sama sœur jël na euh, quatre fois lañ ko agressé mais ci biir euh, ay bus ay car te day yor ay somme yu énorme ba ba ma ko yeddee ba sonn ne ko jël jël taxi boo ko amul tëdd sa kër <laughs> yàlla dina la fa fekk mbaa jëkkër fekk la fa mm-hmm. donc déggalu ma ko sàccaat ko sàccati ko quatre fois def na ko metti na ko et boppam nañ ci insister parce que bus yi je dis pas que ni dugg bus baaxul wala dara mais man personnellement damaa décidé ni man dootuma duggati ci bus parce que chaque jour da am xol bu metti da ngay fay ba pare doo ci am lu la neex balaa nga booy da ngay ro arrêt kenn mësul bus yi sérieusement yéen mës ngeen leen wàccee seen arrêt bu ngeen yéegee bus. da koy dépassé dañ koy dépassé. Mhm. may ma ñu ne la dépassé ba pare boo euh, fu nekk la ñuy taxaw autoroute ci boppam sax da ngay gis kenn ku taxaw ci autoroute di tàllal loxo ñu may ko mu dugg ci bus pour lan loolu. Mhm. Ah, mais c'est c'est incroyable mais daal Sénégal daal ma xam naa ne dañ jël jikkooy rek bulo ko. parce que mhm. fi mu yëpp a tilim lépp lépp tilim. mbaa bi ñu jël bleu yaa ci rek raxasee ko. dañ ko raxasee sama bleu bi. incroyable pour lan sama bleu ma ne pour lan sama bleu. daal bi xaw ma non non je, je, je disais il faut que comme ni ko Pa Assane waxee moom rek laa rejoindre là-dessus. ñu xoolaat normes yi. respecter li nga xamante ni mais. c'est dommage. Sénégalais daal vraiment daal da ngay defar ba sonn. Euh, surcharge bi surcharge xam nga la moo koy indi. boo xamee ni yow sa liggéey. 8 trent 30 lañ la woo pour nga ñëw liggéey. 6h lu la teree génn 6h. vraiment heure boobu koy ne ci mbedd bi. Mhm. kon un peu c' est de notre faute. voilà sax ñu ne ñoom sa ñoo si dañuy liggéey. Mhm. ñaata euh, bus nga fi gis ñu daanu ci pont yi. te tey dogguma la Yacine mosoo gis fajar bus bu fees. moom laa lay wax lu la teree teel a mooy li may wax sénégalais dafa bëgg lu. lu yomb une heure à la non c'est pas possible bi di def mhm. moom rek lay calculer trente quarante cinq minutes alors que dafa war a sóoraale une heure trente mais oui imagine toi man bi ma nekkee au lycée bu ñuy daan dem de la fosse di jàngi dugg HLM Padois man ak sama sœur dañ daan def une heure de temps ci biir bus bi minimum laa la wax mhm. da koy calculer donc ci dois faire un calcule boo xamante ni tu te dis da ngay jël euh, jóge Padois mu romb Castor wër Sénégal Ndiaye mhm. surtout que ni am na bus yoo xam ne dañ 3 beeg yooyu boo amee gan tubaab bu jógee France mën nga ko cee dugal. dana war a réew mi yëpp ba pare doog a àgg la fa nga jëm loolu nag du yoon. dafa metti condition yi dafa metti man dëkk bi si boppam des fois damay toog nii ne man est euh, la tudd wala euh, na yenn yoo xam ne wala wane ma waaw wane ma wala je sais pas am na réalité yoo xam ne. tu mhm. te ni lii ci dafa on tey réalité ngay dund. Mhm. mais bus yi il faut benn jour par exemple yow nga def ci benn reportage jël sa caméra caché taase ko ci biir bus pendant deux heures de temps arrêt yi nga xool noonu. aller retour di nga gis loo xam ni. ci bus yi. ci bus yi di fecc ci ji. mais pas sànq yaa ngi waxu car yi non man je contre que car yi jóge fii les car magnifiques. Mm-hmm. dafa bokk ci décor Dakar. Mm-hmm. xam nga xam nga car rapide yi du car yi ma gis de car yi nga xam ne weñ yi dañuy génn papa ah, sax. boo solee yére boo wàccee sax bu la xoosee nga tetaan bos waaye tamit sa yére sax da koy yàq balaa ngay yegg. mais Yacine man ah, ci ma je parle euh, artistiquement parlant. ma tontu ma tontu kon mooy Asma xaw ma naam. au départ. Carapide mhm. c'était pas destiné à te mel woon nii. bu mhm. petit. Mhm. mel woon nii. dañ ko daggate. mu mel nii dugal ci ay nit. marchandise la woon. ak oto à yooyu la woon. donc ñun comme ci jamono nguur mooy doxal mutation. on n'en a vraiment pas contre qui que ce soit. Mm -hmm. mais mutation yooyu. président Abdoulaye Wade doon na ko jéem. Mhm. ko fàttaliku taxi Iran yi. Mhm. yi mu doon jéem malheureusement. ndeysaan wàdd ci organisationnel lu si bëri doon na ko tenter. mais son équipe. faut ko reconnaître équipe ba. à mm-hmm. un certain moment moo doon fay moo fii nag fii nag moom équipe moom la moom itam wàdd ci jamono. Mm-hmm. juumoon na ci casting aujourd'hui juum juumaat la. mais ak Sénégal fi ñu toll nii tamit quand même carapéti war nañ ko mën a écarter. jox leen tamit yeneen yeneen yeneen oto ñuy daw asma. Mm-hmm. bus